aousubillah min sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci Touba Kër Ñang ci bis bu mag bi nga xamante ni comme niñ leen ko waxee léegi rek daayira Mawahibul Xuddoos ñoom ñoo koy amal fii ci Touba Kër Ñang ñu doon ay jàmbaar lool nag ci bis bi nga xamante ni ñu ngi ko fi amal ku fi ñëw rek sa xool sedd ci seen taxawaay bu am solo bi nga xamante ni ku fi ñëw rek gis nga ko ñu fas yéene am nag euh, jataay bu gàtt boo xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñenn ci jëwrinu lii nga xamante ni mooy liggéey bu sell bi nekk fii ci Touba Kër mel ni ñu ngi feggoog euh, suñu loxo ndeyjoor euh, Serigne Modou Gueye suñu loxo càmm ñu feggoo ceeg Serigne Cheikh Tidiane Dieye incha allah rabbi ñu fas yéene wax rek ci li nga xamante ni mooy taarixu daara ji ak it bis bi nga xamante ni it uh, daara ji moo ko sabab ginnaaw dox bu sell bi nga xamante ni dox nañ ko dem ba ci biir amaana yëg ci ne war nañoo taxawal bis boo xamante ni bisu sant Serigne Touba la ba tey ji foo waay nekk fii ci biir Touba ak li wër Touba rek ngay gis bis bi di ko dégg saa su nekk waaye xam naa ne duñu guddal xam naa ne dañuy njëkkee rek ak Serigne Modou mu ñëw ci li nga xamante ni mooy bis bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci Touba Kër Ñang mel na ne daara ji moom moo koy amal muy Mawahibul Khudus waaye laataa bis bi sëñ euh, Mor Gueye dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy euh, daara ji ndax ku fi ñëw gis macha allahu rabbi liggéey bu rafet bi nga xamante ni tey jii mboolem murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Touba Kër Ñang ànd nañ ko di taxawal bis boo xamante ni bisub sant Serigne Touba la bisub euh, jàng alxuraanul karim ak xasida la bu ku fi ñëw saxool sedd seen taxawaay bu rafet ndax mën na ñoo xam ci tënk rek maanaam daara ji nga xamante ni mooy daara Mawahibul Xudoos kañ la sosu ak bi mu sosoo ba léegi maanaam lan lañ mën a jàpp ne daara ji mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax a baax baax sëñ Mor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa daayira Mawaahiboul Khoudoss ci njiital sëriñ Djili Fall mi nga xam ni yàlla dogal na ni moo jiite daayira Mawaahiboul Khoudoss ci jamono bii comme ni ko sëñ bi wax rek noonu la demee mooy histoire daayira Mawaahiboul Khoudoss bu ñu ci laajee dina am luñ ci mën a wax loo xam ne lu leer lay doon loo xam ne ñoo jëwriñ ñépp ñoo ko bokk dundandoo bokk ko sos ba mu yegg si fii comme ni ko sëñ bi waxee mooy daayira Mawahibou Khoudoss kañ lañ ko sos 2004 lañ ko sos ci jamonoy sëriñ Saliou biñ ko sosee ànd ci di liggéeyal sëñ Touba fas yéene ci liggéeyal sëñ Touba sos ko mu rib boo xam ni fas nañ ci liggéeyal sëñ Touba bu wér yàlla tawfeexal ñu ñu daje fekk sëriñ Saliou tur bi nga xam ni mooy daayira Mawahibou Khoudoss sëriñ saaliw moo ko tuddee daayira Mawahibou Khoudoss bàyyi ko xel bu baax ñaanal ñu ci nit ñu na ko jàpp jàpp koo googu ba bañ ci jógee tegguñ suñu tànk nam ñu ko digalee noonu lañ ko defee kon moo tax jàpp ga nga xam ne jàpp nañ ko mu ñaanal ñu ci moo indi bis bi ba fii te day gën a jëm kanam rek kon loolu tawfeex la xam ni am nañ ko ci sëriñ Saliou te ndam rek lañ ci am incha ndax ku toll ni sëriñ Saliou di xalifab sëriñ Touba nga dem fa. mu ñaanal la nga jox ko sa addiya mu soññi leen tibb suuf jox leen ni leen bu ngeen demee na ko fonk te jàpp ci kon loolu tawfeex la ju baax a baax a baax kon loolu ñu ngi koy sant Serigne Touba bu baax a baax ci ndimbal loolu nga xam ne am nañ ko ci buñ jógee ci ah, jamono Serigne Saliou alaaj sëñ alaaj Baara daal di toog bi mu toogee noonu lañ feddilewaat sunu laxasaay doxaat ba fa moom jébbalaat ko liggéey bi moom it jébbalaat nañ ko ko ay yoon mu ñaanal ñu ñaanal ñu ci soññiwaat ñu ci waxaat ñu ñu jàpp ko ni nga xam ni buñ ko ni jàppee incha allah sëñ Touba dina ko gërëm kon loole nañ ko noonu lañ jàppe woon sëñ Alaaj Baara bi ñëwee moom ñu jébal ko ko ay yoon biñ jógee ci sëñ Baara sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar mu tedd mi nga xam ne bi mu fi jógee léegi yàggagut moom it noonu lañ ko doxe woon ak moom moom it nañ ko ko ay yoon fekk nañ ko ngan na fekk nañ ko Tawféex fekk nañ ko Touba kon daayira Mawahibou Khoudoss jéego yi nga xam ne mi ngi koy dox wax dëgg yàlla am na solo lool lool lool lool lool ba nga xam ne loolu sant nañ ci yàlla bu baax nga xam ne képp koo xam ne toogal nga fi Serigne Touba danañ ànd ak yow ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moom la Serigne Touba dénk ñu ne ñu sosu ci sa ginnaaw ànd ak yow lépp loo xam ne lu xew la ci yoonu murit daayira bi da cay teew. ba ci màggal Touba bu ñuy bale daayira bi ma nga ci yeneen ak yeneen yoo xam ne yoonu murid baaxoon na ko yëpp daayira bi mi ngi ci bay waaram di defit res yoo xam ne di former ndaw ñi ci liggéey ci jaam yàlla ci ak taalu bi nga xam ne daayira bi ni yëmut ci daayira kese daayira dem déedéet day former gone yi nga xam ni ndaw lañ nekk ci koñ bi ñu woo leen di leen xamal lan mooy liggéey sëñ Touba ndax bu ñu leen bàyyee dañuy dem ci leneen loo xam ne bu boobaa du bokk ak sëñ kon ci loolu lañ leen formé nàmpatal leen tolloog ñoom ci côté bu ne dañuy toogandoo ñoom di guddi di toog ñoom guddi di toog ñoom bëccëg di ànd liggéey bi kon liggéey bi mën naa ne fi mu ne nii boo xoolee ñun jamono yi ñu ciy nekk ñun mag ñi booba mën naa ne ñun ay mag doo nga ci nekk waaye fi ne nii li ci ëpp ay ndaw lañ te ndaw ñooñu kon li nga xam ne moo tax ñu ñeme liggéey bi ñu dañoo ànd ak ñoom xamal leen liggéey bi sëñ Touba nga xam ne ñun li ñu dimbali muy mësuñoo xëccoo lenn lu dul sëñ Touba rek dañ koo bokk ngir jëmi sëñ Touba mës ñu ci xëccoo xëccoo njiit mës ñu ci xëccoo secrétaire wala kenn di xëcc naan comme yeneen daayira ni ñu koy defee léeg-léeg saytaane di leen ci man ñun Serigne Saliou ñaan gam ñu ñaanaloon dañ koo mooy dañoo ñaanaloon ñaan gu wér goo xam ne jàpp leen ko te fonk ko kon fonk googu moo ñu indi ba fii comme histoire ni ko sëñ bi waxee daayira bi ku ñuy wax Serigne Modou Sorong moo ko njëkk jiite ba ko jiitee nekk président bi ñëpp topp ci moom ka ca topp muy ku ñuy wax Serigne Mor mooy man mi di wax ak yéen waaye daayira bi boo gisee mu baaxoo doxe doxin woo xam ne néew na ci daayira mooy boo ñëwee président bi ak ki ci topp ak ka ca topp doo leen xàmmee ñëpp dañoo nekk ay président ndax président moom mooy jiite di dégle ak di defar kon li tax mu yegg si fii mooy ñëpp dañoo maase nekk benn léeg-léeg da ngay ñëw fii sax bu ñu réunion nga ne ko yor poste sàngam kenn ku ne mel na ni yaa taxaw taxawaayu président wala secrétaire kon loolu tawfeex jooju sëñ Tuubaa dimbali nañ ci dàq ñu seytaane ji nga xam ne ñun xam nañ ni liggéey sëñ Tuubaa rek moo ñu ñor te moom lañ bokk te mënuñu ko séddoo kon sëñ bi loolu laa la ci mën a leeral ba ci kanam nga joxaat yeneen jëwriñ danañ ci leeral ak ku ñuy wax Serigne Ngagne Kassé it moom it ci ah, daayira Mawahibou Khoudoss bokk na ci ñi nga xam ne ci ñi ko gën a taxaw ci la bokk ñoom it ñu ngi koy ñaanal bu baax liggéey ba nga xam ne moom la ñu mage woon doon ñu si digal gis nañ lépp kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon sëñ bi dañ lay delloo kàddu gi foofu ba ci kanam tuuti ñu joxaat yeneen jëwriñ yi. jërëjëf sëñ Mor ci kàddu yu matale yooyu macha allah mbokk yi ngeen xamee ko noonu ne moom mooy jëriñu lii nga xamante ni mooy daayira bi nekk fii ci Touba Kër Ñang mooy daayira Mawahibul Xudus macha allah di leen di rafetlu seen pas-pas bi nga xamante ne ku fi ñëw rek seetlu nga ko ak doxalin yu jaar yoon wi nga xamante ni ku fi ñëw rek comme ni mu ko waxee sëriñ bi rek moo leen ñor te it ci lañ nekk di ci dox saa su nekk waaye xam naa ne waxtu yi ñuy waxee ak ku ne gis na ne ñu ngi ci jataay boo xamante ni ñu ngi fi waajal li nga xamante ni mooy bisub cant sëriñ Tuubaa tey jii ñuy wax ak yéen ngeen gis ne tàmbali nañ bis bi li nga xamante ne mooy njàngum alxuraanul karim ak xasida macha allah ngeen gis noonu njàngum alxuraan bi di daw noonu noonu it la durus bi di daw incha allah rabbi ñu fas yéenee nag dëkk euh, kaddu sëriñ Cheikh Tidiane Dieye moom it mu wax ci lii nga xamante ni mooy bis bi ndax ginnaaw bi sëñ Mor waxee macha allah ci taarixu lii nga xam lenn ndax it jàpp naa ne ak tënk la rek ndax waxtu yi moo ñu ko mayul waaye ku ne xam ne ne suñu jàmbaar jooju di Serigne Saliou Mbacke lu mu teg loxo maanaam dem rek lay mën a def te dégg ngeen ci noonu ci taxawaay boobu nga xamante ni Serigne bi amoon na ko ci daaira Mawaahibul Xudoos mu doon lu am solo loo xamante ni tey mën nañ ne jéego yi yëpp mën nañ ne barkeem bu ci mësa dugg rek suñu borom sottal na ko bu baax a baax a baax waaye xam naa dañuy dikk rek euh, ci Serigne ti Tidiane mu wax ñu ci bis bi nga xamante ni daara ji ñi ngi koy def chaque année at nu yàlla sàkk mboolem bu bis bi ñëwee rek mboolem fu ab murit nekk fii ci Touba rawatina fii nga xamante ni fi lañ nekk muy Kër Ñang maanaam da ciy génn ànd ko génn waaye balaa loolu rek nga wax ñu tuuti rek ci sababu li nga xamante ni mooy bis bi nga xamante ni yéen a koy def fii ci Touba Kër Ñang asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bi ma santee yàlla julli ci yonante bi maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen xamal rek ci tënk ndax li sëriñ bi wax muy sëriñ Mor léegi euh, teg ci dara yaakaar naa day xaw a jafe waaye ci tënk rek euh, bis bi moom li ko tax a jóg lenn rek la mooy ay ndaw yoo xam ni ay ndawi murit lañ yu dëkke fii ci benn gox bu ñuy wax Kër Ñang bokk ci Touba te histoire Kër Niang nag yaakaar naa am na ñu ko réere waaye am na ñu ko xam ndax Kër Niang dafa bokk ci village yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba te yàgg lool ndax boo xoolee ku ñuy wax sëñ Modou Fadiama Niang moo ko sanc ci ndigalul sëriñ Touba ci jamonoy 1895 loolu kon lu yàgg la nga xam ne Touba li mu màggee Kër Niang daanaka ay juróom-ñaari at la bis bi nag li ko tax a jóg. mooy ay ndaw yoo xam ni dañoo nekk fii ci Kër Niang di liggéeyal Serigne Touba comme ni ko Serigne Touba digle ñu bëgg a jaar ci yoon wu baax won ginnaaw yoon mu bon ndax waxoon na ci tazawudu sigaar ni wajitani bu majalis shaqaawa wajitani bu majalis shaqaawa nag bokk na ci kere daayira di dajaloo doon ay ndaw di fa wax li yàlla digle ak li yonent bi digle ak li sëriñ Touba digle loolu moo waral sababu ñu sos daayira bi bis bi nag bisu cant la cant goo xam ne dañ koo jagleel sëriñ Saliou Mbacké ndax nit li ñuy wax ni ku santut nit doo sant yàlla loolu moo waral ñu amal bis bi tuddee ko cant ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni attaxaddasu bi nicmatillahi shukrun wa tarkuhu kufrun di tudd sant yàlla maanaam loolu mbégte la boo ko bàyyee nag loolu weddi yàlla la yàlla waxaat feneen ci alxuraan ni wa amma bi ni'mati ko fa xaddis maanaam sa borom danga nga war a tudd foo toll di ko sant cant nag dafa bari ay xeet man ngaa sant ci sa làmmiñ man ngaa sant ci sa xol man ngaa sant ci say cër lii nag dafa dajale lépp ndax jël ab bis jël xaalis bu bari jënd ay bernde dajale nit ñi di leen ko jox loolu mënut a paase cant cant gi nag euh, programme bi lenn rek la mooy fi ñu njëkk a tàmbalee mooy dañ koo def dara jaale ko ay daayira yu dëkk fii ci Kër Ñang tuddee leen ko te li olof di wax ni bay ci sa weewu tànk loolu waa daayira bi doxal nañ ko daayira bet seen objectif lenn bokk na ci muy seen bëgg-bëgg dañoo bëgg dajaloo sos lii euh, samp ay daara di wut ay jàngalekat ñuy jàngal xale yi seen diine di leen yar di leen tàggat ci lislaam loolu bokk na ci objectif bu daayira bi seen objectif bokk na ci dem ba créer ay école ak ay daaray alxuraan dem ba tabax poste de santé dem ba defar tali yooyu yëpp ay maanaam ci wàllu développement la bokk maanaam ci wàllu lu ñuy tuddee développement nga xam ni ñoom duñ bàyyi benn côté waaye looy gi def nag day am foo koy tàmbalee di jéem ndànk-ndànk ba ba ngay mën a àgg fi nga jëm. kon loolu moom bokk na ci objectif daayira bi bari na nag waaye damay tënk rek ndax du ma mën a du ma mën a wax lépp ma ñëw ci programme bis bi programme bis bi nag euh, mooy fi ñu tàmbalee mooy dañoo wax ni 9 bu jotee dañuy jàng alxuraan def duruus xasida te bi ñu xëyee ba léegi ci loolu lañ nekk ba fi mu ne nii ñuy waxee 12 heures jot na ñi ngi ci bu 14 jotee li ñuy wax 2 heures dañuy julli daal di xéewlu def ay bernde. suñ xewloo bu quinze heures jotee li ñuy wax trois heures dañuy def durus xasida ak ziyaara su 20 heures jotee maanaam 8 ginnaaw bu ñu jullee timis ba pare dana am mbokk mu fi ñëw def conférence ku ñuy wax sëriñ Baara Xuma li muy wax thème bi mooy euh, jullit yi nan la ñuy booloo loolu nekk thème bu am solo euh, mengook li yàlla di wax ci alquran ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an walla tafarraqu yéen ñëpp ànd leen booloo ngëmanoo ci buumug yàlla gi te bañ a tàqalikoo kon ci loolu lay ñëw pour waxtaanal ci ñu ci vingt heures jotee li des ci guddi gi yëpp nag à partir de euh, vingt heures jàpp vingt et une ba vingt deux heures li des ci guddi gi Serigne Cheikh Diop Mbaye moom mooy ki nga xam ne nii moo koy jàng moo koy fanaane ak ay kuréelu xasida lii daal la daaira mawaahibul quddus ci njiitul ku ñuy wax sëriñ Jili Fall sëriñ Pape Cheikh sëriñ Njaga Diouf Makhtar Diouf sëriñ euh, Mor ak mbooleem ñi ci bokk ñoom sëñ Xaadim ak ñëpp lii daal ñoom lañ tënkoon ni moom lañu fas yéenee ànde sante ko yàlla sante ko sëriñ Touba mi nga xam ne nii mooy ki moom Touba sante ko sëriñ Saliou Mbacké yàlla nañu yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem lii daal lañ waxoon ni moom lañuy jël def ko comme programme ci sixième édition bii nga xam ne nii ñu ngi koy amal fii ci Touba Kër Ñang xam naa kàddu yi dama koy tënk yemale ko foofu di sant. Hmm, waaw mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, jaajëfal di leen tàggu di am mbégte ak contentement bu baax ci jotaay bi wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci guy ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Tidiane Dieye ci kàddu yu matale yooyu mbokk yi ñu gisandoo ko noonu euh, ci kaddu yu matale yooyu ngeen gis ne saa su nekk li ñuy faral di wax rek mooy jëmi daara yi nga xamante ni ñooy liggéeyal Serigne Touba. maanaam chaque jour dañoo war a am vision boo xamante ni tey maanaam képp koo xamante ni tey doxoo ci daayira wala bokkoo ci yoon wi rek euh, war nañ laa xemmeem loo euh, li sëñ Cheikh Tidiane wax nag euh, bokk na ci li nga xamante ni ñëpp ko war a bàyyi xel muy am vision bu kawe boo xamante ni tey dem bay tabax ay daara dem bay taxawal loo xamante ne entreprise boo xamante ne tey dinañ ne kat lii kat daayira Mawaahibul Xuddus ñoom ñoo ko taxawal te it loolu buñ ko xamee buñ ko xamul moom la sëriñ bi bëgg ndax daayira moom comme ni ko sëriñ Cheikh Mbacke waxee woon rek képp koo xamante ne yaa ngi ci bokk ci lu mat ñetti weer yoo xamante ne gisee ci lenn soppeeku ci sa jëmm ak it sa programme bopp rek jàppal ne mën ngaa xoole leneen te xam ne doodoo ko am feneen kon xam naa incha allah rabi dañuy jox Serigne Mor rek mu tàggu bokk nga xamante mooy jataay bi waaye ba tey di ni ñu ngi koy amal fii ci Touba lépp loo xamante ni am na fi moo xam njàngum durus la wala njàngum yëkkati rawatina waxtu yi nga xamante ni moom la programme bi di tàmbali dégg ngeen ko noonu suñu Cheikh Tidiane wax ko incha allah rabi dara du leen biir Touba Vision kon Serigne Mor dañ jox nga tàggoog bokk yi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel ci réew mi ak ci ci bitim réew. waaw sëñ bi comme ni mu ko waxee rek ñu ngi sant ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel liggéey bi ak ni mu ko waxee programme bi nga xam ne day door a xëy commencé nii ñu commencé ko alxuraan ak xasida nga xam ne ci loolu lañ fas yéene dundale guddi gi ndax borom dëkk bi loolu rek la fi bëggoon nekk benn nekk ci yoon woo xamante si ne li mu bëggoon ci dëkk bi ñu nekk ko fi kon ñi ngi sant ñi nga xam ne mbooleem ñoom ñi nga xam ne ñi ngi ñëw taxawu di ko leeral di ko fësal ñoom it sëñ Tuubaa taxawu leen ba niñ ko bëggee liggéeyee ak ci bëggee yegg rek ñu yegg fi lépp lu baax loo xam ne yaa ngi koy yaatal kooku la nga xam ne moom la ci suñu borom digle ak borom dëkk bi kooku kenn amut fay ga kon ñoom ñit biñ leen ko waxee woyof gi nga xam ne ñëw nañu woyof ko di ko leeral ndax dañ ni feesal lu baax njëriñ li ci nekk kenn xamul li ci nekk feesal leneen it musiba bi ci nekk xam xam nu mu toll kon ñoom nañ sant suñu borom ci feesal gi nga xam ne yàlla xër na leen ci ñuy feesal lu baax comme nii ko sëñ bi defee nga xam ni bañ ko wooyee amul benn jafe-jafe dafa bàyyi yitteem yëpp ñëw indi programme indi matériel indi lépp taxaw ko ñëw wane Pastef kon loolee ñu ngi ko ci sant bu baax a baax sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo am fay moom lañ ko booleem fay ko ginnaaw bu loolu jàllee daayira bi am na ci ay membres yoo xam ni ci daayira bi lañ nekkoon dañoo génn ñu comme niñ koy tuddee ñu def benn groupe WhatsApp boo xam ne lépp luy xew ci daayira bi Touba dana fanaane ci ñoom ñii ñi ngi nekk Espagne ñi nekk Italie ñi nekk Fouta ñi nekk Dakar ci gox yi nga xam ne yëpp yu fasantikoo lañ mel na ni daayira bi kenn manqué kon ñoom it seen addee ñëw na seen lépp ñenn ñi mën a teew woyofu teew teew si nañ ñi nga xam ni yàlla dogal mënu ñoo teew seen addee teew na kon ñooñu ñi ngi sant ñëpp di xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa moom bu nangu ko la ci soññi lu ci waaye def sa bopp nga ko defal kon nañ ko jàppe noonu ndax comme ni sëñ bi wax rek liggéey sëñ Tuubaa képp ku ci nekk ñu di la soññ rek sa gëm sëñ Tuubaa ak sa xam sëñ Tuubaa des na kon kenn ku ne nay sa bopp di ci def sa addiya di ci def sa temps di ci def sa xalaat di ci def lépp bañ kenn di la ci soññi kon it jigéen ñi ñu ngi leen di sant bu baax ak ndaw ñeeg ñëpp daal foofu daal la taxaw di sant ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel daayira bi rawatina kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci koñ bi ak ci dëkk bi ñooñu it sant nañ leen bu baax ndax ñu bàyyi xel daayira bi la ba ci jumaay kër ñeeg ji nga xam ne ajuma bi jàll lañ ko ubbi dañoo jël programme bépp dénk ko daayira Mbawoul Khoudoss defal leen ko nañ ko bëggee te noonu lañ fas yéene continuer ak moom ñuy ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ci njiital Serigne Cheikh Niang muy xalifam Serigne Ahmadou Fadiama Niang ba ca eh, mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Fadiama Niang comme ni ko sëñ Cheikh waxee ñoo ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ daayira bi yëg nañ ko safoon nañ kon ñu ngi leen di bu baax baax di ñaan ngërëm li nga xam ne ku def lu baax loola suñ borom dig ak sëñ Touba ñun ñëpp loolu daje ci ñun sëñ Touba defal ñu ko bañ fekk ko ay ati ati at yoo xam ne at mu ñëw day gën a baax gën a ànd ak ngërëmu sëñ Touba gën a ànd ak wér gën a ànd ku yokk kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ñu taxaw la foofu ba ci kanam yeneen jëwriñ yoo xam ne war nañoo ñëwaat leeralaat leneen ci yeneen point yu bare bare bari fii ba ba set daal mën nañu bis bi daal commencé na waaye ba ba 17 day continuer ak sun mbokki jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ñëw di ko leeral ak di ko fésal ci waxukaay yi nga xam ni ci internet bi ak ci fépp foo xam ne ci àdduna la rek da nga ko mën a gis kon sant nañ leen bu baax ñoom seen taxawaay rafet na wax di euh, bañ commencé ba léegi ñi ngi koy doxee nañ ko war a doxee kon sant nañ leen bu baax a baax gërëm leen jërëjëf sëñ bi jërëjëf sëriñ Mor Gueye ci taxawaay bu am solo boobu nga xamante ni am nga ko ci daara ji nga xamante mooy daara la ñuy yemandeeg yéen ci jataay bi nga xamante ni indiloon nañ leen ko ngir leeral li nga xamante ni mooy daara bi nga xamante ni seen taxawaay ak it seen njëlbeen ngeen gis noonu ñu tënk ci ak it sëñ Cheikh li nga xamante leeral ci sabab sus lii nga xamante ni mooy bis bi nga xamante ni daayira Mawahibou Khoudoss ñu ngi koy amal fii ci Touba Kër lii nag lenn la rek ci li nga xamante ni moom la leen Touba Vision waroon na indil incha allah rabbi waaye ba tey di jaajëfal sëñ Makhtar Diouf mi nga xamante ni suñu teewaay fii ci moom la jaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu